bismillahi rahmaani rahim aousubillahi mina sheytaani rajim euh, tey ñun jeunesse su bawal yi nga xamante ne dañoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar euh, ñoo woowoon presse bi pour am ak ñoom waxtaan ci actualité nationale waaye aussi ci actualité au niveau du bawal euh, li ñuy njëkkee rek mooy di di ñaawlu di naqarlu li nga xamante ne dal na suñu coalition te conseil constitutionnel décidé ko Euh, mooy suñu liste suppléant bi nga xamante ne du bokk ci li nga xamante ne mooy élection législative yi euh, waaye lu luñ ci am lu ñu naqari lool it euh, dañuy nekk ay citoyens yu discipliné dañuy nekk ay sénégalais yu am yar dañuy nekk ay sénégalais yu fonk aussi suñuy institution ndax li nga xamante ne mooy conseil constitutionnel ñëpp xam nañ ne moo nekk ci kaw ñëpp te foofu lu fa jóge jàpp nañ ne dafa dëppoog loi dafa dëppook yoon ndax ña fa nekk ñun ñoo leen fa teg doyloo seen xam-xam doyloo seen mën-mën kon même suñu jëlee ndogal te ndogal li doonu li gën ci ñun te ndogal li doonu lu neex suñu xol dinañ continuer di gëm ñoom la ñu wax accepter aussi li ñu wax euh, ba tax na euh, ñun jeunesse bawal bi bokk Benno Bokk Yaakaar tey ñu daje fii vraiment pour lancer un appel à l'opposition sénégalaise ndax démb gis nañ waa Yewwi Askan bi Euh, woote benn conférence de presse euh, conférence de presse boobu gis nañ ñoom position yi ñu ci am ñu leen di wax na Sénégal dëkku yoon la Sénégal dëkku droit la te képp koo xamante ne Sénégal moo la ñor je pense que li nga war a jiital ci sa démarche mooy nga nekk un bon citoyen citoyen un bon citoyen nag mooy citoyen bu respecté ay loi ak ay règlement ak droit yi nga xamante ne moo tënk république bi mu bokk muy république sénégalaise donc jàpp naa ne li nga xamante ne décision la bu conseil constitutionnel jël metti na ci parti au pouvoir metti na aussi ci opposition ndax gis nañ ne seen liste ñoom tamit demul waaye nag dañuy nangu li nga xamante ne moom la yoon dogal ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo njëkk a wan sénégalais yi ne la ñu def ci seen liste baaxul ñëpp gis nañ Ousmane Sonko publier ko ñëpp gis nañ Déthié Fall wax ko ci télé bi ñëpp gis nañ xuloo ba am seen biir ndax liste bu bon kon su yoon jugee dogal loolu ca list boobu ñoom ñu nangu woon ne dafa bon jàpp naa ne aujourd'hui dañoo war a accepter li nga xamante ne mooy décision wu conseil constitutionnel ñun nag ndawi bawal yi ne bokk bennoo bokk yaakaar nangu nañ li nga xamante ne mooy conseil constitutionnel décidé nañ ko te incha allahu rabi du ñu yem ci nangu ko rek dinañ aussi taxaw protéger suñu réew ndax du ñu nangu nekk ci réew boo xamante ne képp ku jug attaquer institution yi fa nekk képp ku jug saaga li nga xamante ne mooy institution yi fi nekk ñun loolu duñ ko nangu te à partir d'aujourd'hui ñun les jeunes Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne dëkk nañ ci région de Diourbel dinañ taxaw défendre institution yi nekk suñu réew dinañ taxaw défendre suñu coalition Benno Bokk Yaakaar dinañ taxaw aussi faire face à cette opposition ndax démb ku dégg Déthié Fall ni mu waxee nga xam ne waxewul yar waxewul teggin ndax soo nekkee ab parti yow nga nangu dem di ñaan pour ñu may la nga remplacer liste ba nga dugal yoon ba ngay ñaan may la ko ba nga def ko nga génn ne non suñ ma autorisé dinaa def suñ ma autorisé wul dinaa def dama ne loolu jeex na ci Sénégal ci dëkk de droit la ñu nekk il faut que opposition sénégalaise bi xam ne lépp lu ñu mënti bëgg ak saa suñu bëggee taxaw ci réew mi dinañ respecté li nga xamante ne mooy loi mooy droit yi nga xamante ne moom lañ teg Sénégal kon bépp décision boo xamante ne état bi jël na ko jàpp naa ne bépp chef opposition war na koo mën a respecté ndax loolu mooy tax Sénégal reste Sénégal bi mu doon loolu mooy tax Sénégal am démocratie loolu mooy tax Sénégal bokk ci pays yi nga xamante ne dañ leen di ràññee ci Sénégal mais mënuñu concevoir nga ne yéen da ngeen a bëgg a yor réew mi mënuñu concevoir nga ne yéen da ngeen a bëgg yokkute réew mi te saa boo leen génnee wax rek mooy taal leen réew mi mooy toj leen réew mi mooy nasaxal leen institution yi nekk ci réew mi kon jàpp naa ne ñooñu seen intérêt personnel moo leen ñor ndax su leen seen intérêt personnel ñorul woon dañuy bokk ci ñuy taxaw dooleel institution yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew dañuy bokk ci ñi nga taxaw nekk ay nitu droit ba saa bu droit waxee ñun ñëpp ñu ànd ci xam ne loolu mooy yoon ñu def ko ñuy waxaat di wa un appel aux xalif généraux yi nga xamante ne dañoo nekk Sénégal ndax ñëpp gis nañ xalif yi nga xamante ne ñoo nekk ci këru diine yi saa su ne ñu génn di woote jàmm di woote salaam saa su ne ñu génn di woote xol yi booloo waaye ñu ngi leen di wax ne opposition bii fu nekk. li ñu bëgg a def ci réew mi ñu ngi leen di ñaan ñoom xalif généraux yi fi nekk moo xam Touba Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te moo xam lew na ñaseen moo xam laayeen moo xam tiwaawoon ñu ngi leen di lancé pour que ñoom aussi ñu génn wax ak ñii nga xamante ne saa bu ñu génnee li ñuy wax mooy taal leen réew mi saa bu ñu génnee li ñuy wax mooy dox leen dempale te loolu mooy rey leen suñu doomu réew loolu mooy indi leen insurection ci réew mi loolu nag ñoom xalif yi nga xamante ne ñun ñoom lañu yaakaar adduna ak àllaaxira ñoom ñooy suñu buntu ci yàlla suñu borom ñoom ñoo doon ñi nga xamante ne ñooy sàmm jàmm ji fii ci réew mi ñu wax ak opposition sénégalaise ñu wax leen ne dëkku yoon la ñu nekk ñu wax leen ne dëkku jàmm la ñu nekk ak lu ñu mënti bëgg ci réew mi nañ ko defee ci jàmm nañ ko defee ci salaam appel bi ñuy lancé ngir ñu génn taal réew mi appel bi ñuy lancé ngir ñu génn toj réew mi ñu ngi ñaan xalif généraux yi fi nekk ñu wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ndax ñun duñ ko nanguwaan ah. ñun waa jeunesse Benno Bokk Yaakaar du ñu nangu kenn ñëw di taal réew mi du ñu nangu kenn ñëw di fi def loo xamante ne dëppoowul ak yoon lu ñu leen autorisé accepté nañ ko nañ leen bàyyi ñu def ko waaye it lépp lu yoon autorisé wul dinañ taxaw faire face képp ku bëgg a jàkkaarloog yoon nasaxal institution yi ñun waa jeunesse Benno Bokk Yaakaar bi nekk ci région de Diourbel dinañ taxaw xeex li ñu war a xeex def li ñu war a def ba réew mi nekk réewu yoon nekk réewu jàmm. li woon waraloon tey jataay bi. ci situation politique nationale bi lañ bëggoon a waxtaan ak yéen xew-xew yi fi xew su ma wax na ko duma si dikkaat pour gagner di temps ni mu ko waxee mooy ndogal yi nga xamante nii dal na suñu kaw te ñu nangu ko ndax réewu droit noonu lay doxe bu fekkoon kum neex nga def lu la neex doo mën a tëj sa kër yeew sa am xar boo yeewoo fekkaat ko fa pour gàttal dañoo séq ak benn opposition Sénégal boo xamante ni ay bandé si si opposition ak ay saay-saay ay kàccoor ay mag yoo xamante ni dem nañ ba dikk ñëw bëgg a taal réew mi te duñ ko nangu ñun ak ñoom ñoo yem si réew mi dama bëgg mu leer ñoom liñ fi am ñun loolu lañ fi am dégg naa Déthié Fall ne mercredi suñ leen joxee mars dañuy mars ñu leen joxul dañuy mars waxuñu dëgg ñoom dañ fee ami kër ñun ñu am fii kër ñoom ñu am fii tool ñun ñu am fii tool ñu am fii oto ñu am fii oto man ku laal sama alal damay laal sa alal lu ma si xaar kenn ku toj sama oto damay toj sa oto mercredi damay xëy ñëw ville dox sama yitte dem mbooro sama tool doxi sama yitte ñoom moomuñu réew mi li ñu wax du dëgg ngeen baal ñu kàddu gi booy wax ak ay mag ñoo xamante ni dañoo reew yaradiku wax lu leen neex boo leen di tontu da ngay wàcc ba tolloog ñoom wax lu la neex Cheikh Abdou Bara Doli ñoo bokk Bawal dégg naa ko muy wax si waxi ay góor jigéen moom dafa war a noppi si waxi góor jigéen ngóog mu toll ne moom xeesal aw yaramam ba mu weex rocc ay tuñam ba mu xonq mu taxaw di wax si waxi góor jigéen dafa war a noppi Bruxelles gii mu dëkk gare de midi di fa fekk tubaabam boobu ñu nekk si benn hôtel ñoom ñaar na wax lan la fay def buñ ñu fontoo moom problème yi mu am ak état ñun xam nañ ko téere yi mu jëloon fii maris bëgg koo jaay état bi bañ mu génn di attaqué Mame Boye Diao loolu dossier baa ngi suñu loxo càcc gi mu nekkee woon douane xam nañ ko dossier yaa ngi suñu loxo buñ ñu tax a wax ñoom moomuñu réew mi suñ mënee toog ay mag yi jëmm jiital benn waay boo xamante ni si ay zakku si la demoon dugal fa ab xale bu ndaw gis nga sariya bu ñu ko doxal doon doxal si réew mi Sonko tey du ko fi fekk dañ ko war a faat boroom ñaari jabar jël xale bu ndaw dugal ko si ay zakku si yéen moomoo leen réew mi ñun faale leen. bàyyi leen seen intimité yi ngeen di def nit ñi ak di xoqutal nit ñi mënoo leen ñoo tee dox suñuy soxla luñ bëgg a waxanteeg yéen dañ koy waxanteeg yéen fii kenn faarewu leen fi yoroo leen réew mi dénkuñu leen ko président de la république la réew mi jox confiance dénku ko muy doxal yéen bu ngeen amee jàmm grâce à président Macky Sall mënoo ñëw su la neexee gaare sa oto kenn du ko sàcc bu la neexee sa jabar takk or kenn du ko këf loolu sécurité boobu noonu ngeen ñëw taxaw tey di saaga police di saaga gendarmerie di saaga ay institution ma ne loolu du am Cheikh Abdou dama bëgg nga ba sa xeesal bi te wax sa digganteeg sa tubaab bii nga nekkal Bruxelles di ko fekki gare de Midi André naan damaa séq ak moom ay oto lool nga war a lijjanti on sa connaît ñun xam nañ lay xew Bruxelles mag mu toll ne yow jël xaalisu franc-maçon yeeg góor jigéen yi pour def promotion góor jigéen fu ñu toogee rek ngeen ne Benno Bokk Yaakaar dañuy góor jigéen yéen ñi koy waxtaanee yéen a koy promouvoir yéen ñooñu ci seen biir yéen opposition bii nga xam ne ay lesbiennes nag ay guy nag yéen yéen a dajaloo foofu taxaw jiital Ousmane Sonko mi demoon si xale bi di ko namp guddi maskaw dem nàmpi def lu ko neex pare ñëw taxaw ngeen bëgg ñoo sonal mais yéen yéen moom réew mi mais yéen yéen a moom réew mi ba leen neex def dem maskawu def lu la neex nàmp ba sa xol sedd nga ñëw taxaw naan damay taal réew mi ak sama liste bi bu jàll ñun ñoo defar liste yi ponkal yu toll nii yéen liste sax mënoo leen koo defal dama ne ngeen bàyyi caaxaan Cheikh Abdou œil pour œil dent pour dent gis nga la nga defoon sa élection yee passé du amaat ñun ngay fekk sur le terrain Touba si élection yi ñu jëm nga yaakaar ne toog di saaga jëwriñu sëñ Touba mbakki yu fay jëwriñu sëñ Touba si Ndakaaru nga toog di ko saaga ndax daa wax ne Macky Sall moo def lu baax waa sañ bi man réew lañ ne duñ bàyyi par parloo gi yéen a ngi ànd ak seeni i journaliste yi bopp ñu toog si ay télé di def ay chronique di wax lu leen neex si Ousmane Senk euh, Sonko naan moo fi gën ku wax ne Macky Sall ngeen saaga ko loolu day dakk boo toogee si télé ne Ousmane Macky Sall def lii ngeen ko ngeen di saaga seen i chronique yi bopp am na ay télé yu nekk fii si Sénégal Ousmane Sonko la ñuy promouvoir ñoom la ñuy defal promotion yéen journaliste yi xam ngeen li ma wax ngeen bëgg ne kenn du toog wax li Macky Sall def mënoo leen a tee Macky Sall moo fi def Ila Touba mënoo leen a tee ñu ne Macky Sall moo defar ab hôpital mënoo leen a ñu ne Macky Sall li def si mbay mi ak agriculture man si agriculture laay liggéey sama domaine la dama xam li si Macky Sall def bi mu ñëwee ak tey demal si Vallée du Fleuve sëñ bi caaxaan baaxul mënoo leen a ñëw di kidnapper nit ñi si di leen terroriser laa la wax si li ngeen bëgg yéen si jógal ma toog lan moo fi changé bi ngeen ñëwee si maire yi ak léegi yéen salaire sax mënoo leen koo fay mënoo leen xamoo leen te du ngeen ba yaakaar ne yéen dañ leen di bàyyi ngeen ñëw di xoqutal nit ñi ak di menacer nit ñi ku fi waxee Macky Sall ñu rey la man maa ne Macky Sall ba suba fii laa koy waxee man man maa ne Macky Sall laa wax ba ginnaaw suba yéen moom nit ñi ku tudd Macky Sall ñu saaga la da ngay génn sax say mbokk naan la yaa tudd Ousmane Sonko mais Sonko mooy kan moo nampi woon Adji Sarr dem nàmp xale bi ñëw taxaw ñu naan usmaan mu sell mi Ousmane mu sell la di mi Ousmane saay-saay bi pour muy leer lu gàtt rek laa amoon si lu may wax ñoom moomuñu réew mi nañ xam ne lu mu leen jaral ñoom Déthié Fall nee na ñoom lu mu leen jaral lu mu leen jaral ñoom ñun jaral nañu ko ñun ñi bëgg a defar réew mi ñun ñi dénk président de la république wóolu ko ñoom ñi nga xam ne ay saay-saay lañ ca bëgg a yàq réew mi lu mu leen jaral ñun jaral nañ ko. asalaamaaleykum. maa ngi euh, tudd Moussa Ba nekk le coordonnateur des étudiants républicains du département de Mbacké ñu koy wax maire départemental de Mbacké donc euh, euh, xam naa ni lu ci bari du ma ci ñëwaat ndax samay prédécesseur wax nañ ci ba pare li may wax rek mooy maanaam di xamal tey opposition bi nga xam ne bii ni tey ñoo nekk Sénégal donc plus particulièrement Bawal di leen xamal na ñun ndaw yu Bawal pare nañ pour jàkkaarloo ak ñoom ba lépp loo xam ne nii tey jaral na leen ko pour ñu yàqal président Macky Sall bi nga xam ne bi nii liggéey réew mi lañ ko xamee donc ñun pare nañ pour jàkkaarloo ak ñoom wàcc sur le terrain nag faire leen face ndax euh, li nga xam ne nii tey moom lañ teg bët muy liggéey bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi nekk di ko liggéey ci réew mi ñoom loolu la ñu bëgg a yàq ndax réew mi ñoru leen te je pense que ku ci nekk ci ci ñun mën nga joxoñ baaraam donc loo xam ne nii tey président Macky Sall def na ko fi loo xam ne nii tey sénégalais ñu ngi ciy gis seen bopp. donc bu ñu jëlee exemple ñun en tant que ay étudiants rek ñun ci li ñu mën a wax muy euh, le sous-secteur de l'enseignement supérieur tey président li mu ci def amul kenn ku ko ci def ndax bi mu fiy ñëw en 2012 ci wàllum euh, dëkkuwaay mën naa ni sooxe woon na trop ci université yi nga xam ne ñoo fi nekkoon muy UGB muy euh, Université Anta Diop de Dakar donc te je pense que tey dafa tripler capacité d'accueil yi nga xam ni tey moom moo am à au sein des universités. Sénégal dañ pour cent population bi ay jeunes lañu kon réew mi yaakaar naa ne jeunes yi ñoom ñoo ko war a téye ndax ñoom ñoo ko moom te président dafa cëral jeunes yi lu koy wane mooy ci liste yi nii nii nii nii yi maanaam plus de vingt pour cent ci investiture yi au niveau national ay jeunes la investir donc kon kooku bu nee jeunes yi moom ñoom laay liggéeyal ñu war koo mën a nangu. te ñoom seen liste yi nañ ci dem nañ xool jeunes yi ñuy woo ne la na la ñuy wàcc tali bi nañ dem xool liste liste liste coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu ba xam danañ ci gis seen bopp duñ ci gis seen bopp ñoom mag ñi la ñu jël investir ci seen liste yi ba pare ñuy xuloo di xeex tey ñu bëgg ne dañuy woo jeunes yooyu noonu ñu wàcc nañu am fulla ak fayda tey ñun dañuy dem taxawal défendre suñu président parce que lu tax daf ñoo jox suñu cër jox ñu suñu gëdd parce que daf ñoo jël investir ñu ci liste yi jël jeune muy ñun suñu coordonnateur Abdoulaye daf ko investir ci liste au niveau du Bawol donc y' a de jeunes qui ont été investis dans les donc ñun tey bu ñu jógee taxaw dañu war a taxaw parce que président daf ñu cëral président dafa jël jeunes yi jox leen seen gëdd. donc jeunes yooyu noonu nag may wax ak ñoom surtout la jeunesse du Bawol ñu jëral jug takku nekk benn xam ne tey élection yi suñu élection la te président de la république ñun jeunes yi ñoo ko war a jox majorité à l' assemblée nationale te incha allah danañ ko ko jox donc en tout cas ñun étudiants yi pare nañu. ni ñu investiré woon euh, euh, terrain bi élection législative yi passé élection locale yi passé autant pour moi donc nu ko raw la ñuy investiraatee terrain bi pour jox président Macky Sall majorité ndax dañu ko soxla ci réew mi projet yi nga xam ne amoon na ko ci réew mi dañoo bëgg mu naal bi nga xam ne naal na ko dañu bëgg mu continuer ko te pour mu mën ko continuer faaw ñu jox ko une majorité à l' assemblée nationale donc te loolu nag il faut que jeunesse bi xam ko donc ñi ngi ñëpp di leen lancer un appel solennel à toute la jeunesse du Bawol ñu booloo ñu ñëpp ñu nekk benn ñu wàcc sur le terrain liggéey élection yi fexe ba jox majorité écrasante au président de la république Macky Sall.